salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors tey la samedi 8 mai 2021 saison 5 épisode 6 mu nekk nag tey épisode bu spécial ñu war a découvrir ensemble ñaari projet yu extraordinaire te ay sénégalais taxawal ko bii nekk ci wàllum assainissement beneen bi nekk ci wàllum wérgu yaram alors ñaari projet yëpp nag basé wu ci euh, objet connecté yi wala internet des objets mais aussi ak yeneen technologie yu bëri bëri bëri yoo xamante ni mu ngi nekk ci biir projet yooyu noonu alors donc épisode tey bii nag je pense que dina neex trop parce que ñaari partie lay doon première partie bi dinañu waxtaan ak monsieur Mourtala Mbegere ci projet assainissement bi nga bi nga xamante ni moo tudd fosse éthique nga xamante ni daf ñuy alerter su suñu fosse septique yi di waaj a fees mais aussi jàppale ñu pour ñu mën a jot rapidement ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def vidange bi maanaam ngacc fosse bi alors ci deuxième partie bi nag dinañu waxtaan ak docteur Keba Gueye nekk professeur fii ci ESP euh, e bu Dakar Euh, en 2019 nag ci doctorat mu bind benn article bu am solo di ci proposé benn plateforme informatique ci wàllum wér yaram plateforme boobu nag day permettre ñi nga xamante ni ñoo nekk ci àll bi wala fu sori sori sori surtout xale yi ñu mën a faju maanaam consulter wu ci ay docteurs yoo xamante ni ñu ngi nekk ci dëkk yu mag yi euh, à distance mu ngi mel ni dakaar Thiès ak euh, yeneen ak yeneen parce que nag experts yi bëriwuñ pour mën a matal dëkk yëpp nekk ci dëkk yi nekk Sénégal yëpp quoi loolu day jafe nga xamante ni war nañ ci waxtaan tey ak suñu ñaari invité yi Mourtala Mbegere ak Keba ak docteur Keba Gueye alors Mourtala Mbegere fausse éthique ziar nañ la. waa ñu ngi delloo ziar ñëpp di nuyu di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp ci émission Wolof Tech merci Mourtara alors ñu fàttali aussi que docteur Guèye euh, ci article boobu noonu mu bind te ma wax ko léegi nii euh, jotoon na ci am benn raaya fële na la ci Corée du Sud parce que nag solution bi mu proposé dafa nekk euh, benn solution bu am solo alors docteur Guèye ziar nañ la. maa ngi lay ziar El Hadj maa ngi ziar aussi sa auditeurs yaa ngi si jàmm wala waaye maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. Hmm, macha allah alhamdulilah. alors dañuy dugg rapidement nag donc ci première partie bi parce que nag ci ci weeru koor lañ nekk mais j'espère que kenn nekku ci seereet ci yéen ñaar de. <laughs> non non non non. <laughs> kon baax na <laughs> alors euh, Mourtala doo séeréer. déedéet du ma séeréer naar la. non man man du wax sama position fan laa nekk sax fii ci àdduna bi donc du coup parce que gars yi séeréer yi ñeme nañ ma fi fekk dóor ma quoi <laughs> dama leen sonal. Uh-huh. alors dañuy dugg nag rap rapidement ci première partie bi euh, avec Mourtala Mbegere ci solution fausse éthique bi mais aussi docteur mën na ci participer parce que su ci amee ay xalaat parce que ci même domaine am la ba léegi euh, comme ça ñu mën a ànd àndandoo discuter d'accord. Mm-hmm, man na ayca ñu dem directement ci première partie bi juste après euh, après jingle bi. alors euh, yaakaar naa ni tey fii ci Sénégal wala sax fépp foo munta dem ci àddina bi kër yu bari je pense am nañu ay toilettes alors ku wax toilette nag wax aussi euh, plus souvent fosse septique maanaam fi nga xamante ni foofu la ndox yu bon yi euh, ak gaanuwaay yi ak yëpp di daje alors ñàkkul bés nag nga toog sa kër sa fosse sa fosse kër fees ndox bi commencé bal xet gi commencé ubbale kër gi yëpp avant sax ngay woo ñi nga xamante ni ñoo war a def vidange bi affaire yi ëpp loxo ba sax indi la ay jafe-jafe ci cet indi ay jafe ci gi nga xamante ni moo war a am euh, déjà ci kër gi. alors loolu moo tax nag ñu war a tey waxtaan ci solution fausse éthique bi nga xamante ni euh, dafay jëfandikoo xarala yu bees yi maanaam internet des objets pour indi saafara euh, ci jafe-jafe yooyu noonu ñu wax léegi nii alors Murtada lan mooy fausse éthique ak fan la idée créer projet bu ni mel jógee. comme niñ koy déggee ci kàllaama nasaraan moom mi ngi maanaam fos comme fos ak tig mhm. ñaari tu moo tu ñaari moo yooyu lañ boole pour wax euh, fos yoo xam ne pour mën a désigner fos boo xam ne dañ koy connecté c'est-à-dire fos boo xam ne day wax bu fekkente ne mi ngi waaj a fees. ok mais alors alors alors seen projet boobu noonu fan la fan ngeen amee idée wu créer projet bu demee noonu quoi da ngeen jékki-jékki créer ko wala wala am na histoire quoi derrière. waaw maanaam ñu ngi ko idée bi mi ñu dikkee jamono ji ñuy def sunu cours boo xam ne mooy ñuy jàngal lépp lu ñuy def pour organiser la gestion des boues de vidange maanaam ndoxu foos yeeg yooyu nan la ñuy mën a def pour organiser ko pour mën ko di ko yóbbu ci bërëb yi nga xam ne fa lañ koy traité bi ñuy wax nag ci problème yi nga xam ne ci la ñuy rencontrer ci boobu domaine ci la ñuy wax hmm. wàllu manque d'information maanaam nit ñi duñu am hmm. information bu fekkente ne seen fosse mi ngi waaja a fees wala ñenn ñi dañuy ubbi regard fosse yi di xool niveau bi fan la tool ci la ñu dikkalee nag ah ba ne léegi pourquoi pas mënuñoo créer benn solution boo xam ne moo nuñ mooy mooy moom la ñuy def ci fosse yi nga xam ne foo mënti toll bu sa fosse di waaj fees rek nga daal di koy yëg am benn message SMS foofu la ñu dikkalee. ok ok alors je pense que sa c'est hyper intéressant euh, déjà loolu laa gis sax ci internet bi ba ba tax ma ne xaaral ma invité leen pour que ñu gën a waxtaan yaatal pour ma ñu gën a xam exactement projet bi lan moo nekk ci euh, lan moo nekk ci biiram alors alors comme ni ñu ko waxee sànq ci introduction bi da ngeen utiliser xarala yu bees yi pour mën a euh, comme ni ñu ko waxee léegi di alerter nit ñi bu seen foos yi di waaj a fees alors li ma bëgg noo xam rapidement mooy yan technologie ngeen utiliser euh, pour solution fosse éthique boobu nga xamante ni voilà ak système bi di doxee déjà. waaw bu njëkk nag bi ñuy soog a door. Mhm. ñi ngi démarré woon par système GSM. E mhm. maanaam module yoo xam ne moom la ñuy intégré ci biir euh, capteur ci biir boîtier bi nga xam ne nit ki day jot message SMS boo xam ne da koy alerté wax foo sam dafa fees waaye gannaaw gi nag la ñu nekk di def ay recherche ñu amoon benn technologie bu bees bu ñu commencé indi fi Sénégal mooy onde rajo yi ak LoRa. ak euh, la technologie was yëpp ci boobu nag lañ ne léegi pourquoi pas comme boobu moo gën a sori euh, maanaam signal bi mooy gën a sori ñu ne léegi nañ utiliser euh, technologie rajo boo xam ne boîtier bi boîtier bi mooy envoyé message directement ci benn cloud ak ay genre antenne gateway yu ñuy déployer sur le sur sur l'étendue de du domaine waaw cap euh, système bi nag mi ngi composé nji ñetti partie dafa am benn sonde boo xam ne moom la ñuy intro moom la dugal ci biir fosse septique bi euh, sonde boobu ñu relier ko am benn boîtier boîtier boobu nag mooy def communi communication LoRa di envoyé donné ci benn gateway gateway boobu traduire donné yi envoyé ko ci benn cloud euh, ci cloud boobu nag la ñuy récupérer def benn application boo xam ne moom la client bi wala entreprise bi bëgg a def gestion des boues de vidange moom lay installé wala mu yore plateforme bi pour mën a organiser la gestion des boues de vidange te li ci gën a am solo mooy man nañu contrôler niveau de euh, remplissage des fosses mhm. ci benn rayon boo xam ne ñu maanaam mi ngi démarrer cinq à sept euh, à dix kilomètres ci benn rayon dix kilomètres mën nañu euh, xam niveau fosse septique des des des maisons. alors je pense que ça c'est intéressant am na solo trop alors dégg naa léegi nga wax euh, sonde euh, wax boîtier alors la déjà déjà sonde bi moom ngeen di jël dugal ko ci biir euh, fosse bi la lan mooy sond ak matériel la dafa am capteur ci biir wala ban dispositif lan mooy sonde exactement pour ñi nga xamante ni xamuñ exactement. waaw sonde benn capteur la. Mhm. capteur la boo xam ne ñoo ko concevoir. moom la ñuy dugal ci biir fosse septique bi. mu am benn benn coque. boo xam ne moo koy protéger comme comme sonde yu ñuy comme flotteur genre boo xam ne moom la ñuy introduire directement ci biir fosse septique bi mu nekk en contact avec les maanaam ndox yi ak ak buu bi mooy li ñuy tuddee li gars yi wax naan suuf si. léegi nag dafa am ñaari scénario yu am. Mhm. c'est-à-dire que sonde yi ñuy def dañ koy def pour mu mën a capter buu bi mooy mooy suuf si. suuf si waaw. ndax suuf si mooy indi problème ndax fosse septique yu bari dañuy am benn puisard d'infiltration. cest ndox mi dafay dem foofu bu ko defee nag suuf soosu moom moo fay nekk te suuf soosu moom la ñu mën a utiliser euh, dans l'avenir pour valoriser defar ay méthane wala defar ay bio bio bio compost ay ay humus yu demee noonu léegi nag day permettre yenn organisation wala yenn société yoo xam ne dañuy bëgg di utiliser matière première boobu ñuy disposer ci ay kër euh, capteurs yooyu bu ko defee à chaque fois que am nañ quantité maanaam force bi mi ngi waaj fees ñoom ñu dem récupérer ko directement pour wax ne dans l' avenir mhm. dinañ dem ba benn jamono joo xam ne dañ lay fay pour vider la sa fosse septique waaye ça c'est sûr ça c'est business lay doon bu baax business bu mag lay doon quoi <laughs> tentaan sa gars yi fees a gaaw feesal seen fosse yi pour am xaalis quoi <laughs> alors alors je pense que loolu loolu am na solo bu baax a baax euh, alors mais beneen question bi ma la bëggoon laaj toujours ci wàllu euh, technique mooy naka la nit ki nga xamante ni dafa am euh, dafa c'est-à-dire installé nañ euh, dispositif bi ci këram naka lay def ba jot message wala euh, bu koy wax ne ko force bi fees na wala genre bi na fan la message bi di jaar est-ce que day jaar ci seen plateforme ba pare ñëw ci moom wala directement lay ñëw ci moom su fekkee ne aussi dispositif bi dafa war a am internet coût bi kan moo koy kan moo koy gàddu wala yu demee noonu quoi. waaw comme ni ñu koy waxee boo demee ci domaine IoT mhm. dafa am ñaari ñaari so ñaari communication communication rajo bi nga xam ne mooy jóge ci boîtier bi dem ci dem ci dem ci get dem ci antenne bi mhm. antenne boobu nag dañ koy connecté ak internet moom protocole communication par internet moom lay utiliser bu ko defee moom bu mu mën a envoyé ci benn sunu benn application application bi nag mooy defal notification client bi wax ko ne ko sa foos mi ngi waaj fees léegi day am ñaari information ki nga xam ne mooy gérer maanaam euh, vidange fosse yi dina dina yëg waaye client bi nekk ci kër gi tam dina ko yëg ba pare en plus de euh, maanaam message yooyu muy jot day am ay buzzer ak ay ay clignotant yoo xam ne même bu fekkente ne message bi yéex na sax. Mhm. moom na ko teel a yëg. ok ok alors ki alors utilisateur bi moom dafa am benn application bu mu yor ci téléphone am wala par euh, nan la message bi di ñëw ci moom. waaw waaw day am eh, eh, application moom xam nga dafa am ñaari façon cest a dire que benn société mën na ñëw ne moom mooy def gestion du providence moom mooy videel nit ñi seen yi wala benn client mën na jug ne ah man de damaa bëgg am capteur bi installer application bu ko defee bu boobaa moom directement application bi moom day jot foofu ci application bi message via ci cloud bi mais bu fekkentee ne tam dafa am benn société boo xam ne ñoom ñoo koy euh, defal maanaam ñoo koy videel foosam installé ko capteur bi moom bu ko defee day am benn message normal notification lañ koy defal message normal pour wan ko ni sa photo mi ngi waaj a fees. ok sa marche alors alors docteur euh, docteur Keba euh, naka nga gisee euh, solution bi nga xamante ni ñoom Mourtala mettre nañ ko sur place. non solution bi moom c'est à c'est à saluer. Mhm. solution boo xamante ni la dina dina dimbali ñu bëree bëri surtout am na yenn zone boo fa demee. seen force yi day fees sans pour autant que ñoom ñu jël la peine pour tel koy vider ko wala ñoom dañuy toog a toog ba kii bi fees ba kii bi di xeeñ ubbale foofu yëpp ñuy door a ñuy door a xalaat lañ koy vider je pense que solution bi ça ça permettra d'abord au videur ñoom ñu teel a am kii ne force telle personne mu ngi si état bu fees naa déplacé wu dem balaa muy ubbale si koñ ba en même temps aussi la personne dina mën a préparer en conséquence bu nekkee ne jot na alerte yi jéem a dem vers euh, le leader là. ok ok macha allah solution bi moom c' est innovant quand même. innovant et aussi dina part dina participer aussi si. Mm-hmm. si environnement bi gestion environnement. aussi ah oui ah oui ça c'est sûr. ça c'est sûr et je pense que dinañ ci waxtaan sax ci kanam tuuti euh, ci euh, ci volet boobu noonu. alors euh, alors ginnaaw ginnaaw Mourtala ginnaaw système bi nga xamante ni mooy gérer alerte yi su fosse bi su fosse bi feesee gis naa aussi ci seen site bi beneen service bu am solo yaakaar naa tudd nga ko léegi sax mu nekk mise en relation c'est-à-dire fexe ba su fosse bi feesee nit ki mën a nit ki mën a am ñoo xamante ni ñooy ñëw defal ko vidage rapidement. alors plateforme boobu noonu di gérer mise en relation bi naka lay doxee. waaw xam nga dafa bokkoon tam ci jafe-jafe yi nit ñi di am ci wàllum assainissement. Mhm. maanaam bu seen fosse feesee même bu fekkee am nañ information ne fosse bi fees na du ñu xam maanaam fan la société fan la ñi nga xam ne ñooy vidé nga ci fosse yi fan la ñu nekkee. te dina am sax ñoo xam ne dinañ leen jege te duñ leen xam léegi nag day ñëw ci sunu sit bi envoyé benn requête bu envoyé requête daal di wax ne damaa bëgg a bind fausse bi moo doonoon système GSM bi moom ci noonu la doon demee mais nag ci application bi nga xam ne moom la ñuy def. Mhm. moom directement bu fekkente ne fausse bi fees na ñun ñoo koy bu ñu ko defalee euh, notification boobu ñoo koy booleeg directement kuy xam ne moom mooy ñëw videel ko fausse septique am dañuy dañuy géolocaliser wu en même temps mhm. les sociétés de vidange. ok alors je pense que franchement affaire bi mu ngi mu ngi gën a intéressant sax euh, innovation dëgg la parce que après alerte bi su amul ñu ñëw vider fosse bi problème day am donc plateforme boobu noonu di jokkalante borom fosse yi ak entreprise yi di def vidange am na solo trop et en plus euh, da lay orienté euh, ci da lay orienté ci vidéokat bi nga xamante ni moom moo la gën a jege sa kër et je pense que avec ça mun na am sax mu am ay frais frais yi mun na gën a woyof je waaw noonu la fay demee nag ndax dañoo bëgg bokk na ci problème yi comme ni ñu koy waxee maanaam ñu anticiper ko. Mhm. état bi day dem jàpp ci coût vidangiste bu nit ki waroon a fay trente cinq mille francs moom état bi mën na xam nombre xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo connecté wu. te dina mën a jël moom it xaalis daan ne léegi dinaa leen wàññil ku ci nekk dinaa la fayal dix mille francs moom la ñuy wax naan eh, kii bi. Euh, euh, maanaam état bi participer ci coup de vidange des fosses septiques. macha allah ça c'est ça c'est hyper cool et foofu sax si lay jaaree euh, pour laaj la beneen question bi maanaam c'est-à-dire képp koo xam ne ni bëgg na am solution bi ci këram wala ci entreprise bi naka la war a def ak aussi est-ce que da ngeen ni sóoraale affaire bi avant avant daf koy prévoir avant sax muy tabax muy tabax fosse bi wala après bu tabaxee fosse bi ba pare war ngeen mën a ñëw installer ko sans problème. waaw instant bi ñu ngi commencé c'est pare nañ prototype bi pare nañ test yi. Mhm. donc dafa am benn société boo xam ne moom la ñuy waxtaanal. moom ñu commencé phase pilote installé quinze mille capteurs ci région wu Dakar commencé ci région wu Dakar. bu fekkente ne nag am na ko xam ne tam bëgg na moom dañuy contacter directement ñu ñëw installé ko waaw fosse bi bu beesee comme bu fekkente ne fosse bu màggee te mën nañu ñëw ndax da ñëw rek ci rajo maanaam loolu ñu ñu ñu moom lañ ñu ñëw def benn trou rek dugal capteur bi bu ñu dugalee capteur bi après day am benn genre bouchon. Mhm. boo xam ne moom lañ koy tëjee rek daal di def connexion bi ci des bu ko defee mu demee noonu. ok ok ah. alors je pense que franchement c'est clair et man euh, maa ngi pousse Sénégal yëpp euh, bu affaire bi commencé euh, déjà sax commencé na mais mun nañ leen contacter pour am information yëpp dinaa def information donc di nga ma envoyé sax information yëpp ma def ko ci description podcast bi parce que pour que képp ku leen bëgg contacter soit liggéey ak yéen wala bénéficier wu ci service yi nga xam ne ni ñu koy joxe moom mu leen contacter mais aussi bëggoon naa xam actuellement solution bu mel nii pour ngeen mettre ko sur place euh, yan problème ngeen jànkuwanteel ak actuellement yan problème aussi ngeen am pour mun a vulgariser solution bi pour que mu daj Sénégal yëpp quoi. waaw question bi nga posé am na solo lool ndax boo gisee lépp lu bees loo bëgg a indi ci benn euh, dëkk boo xam ne xamuñu ko woon. Mhm. day am as day am yo maanaam dox bu bari noo mën a jëflanteeg ñoom bokk na ci loolu communication. pour wan leen leen ñoom leen am na benn problème bu ngeen jànkonteel te ñun am nañ solution boo xam ne moom lañ koy mën a moom lañ ko mën a saafaraan bokk na ci loolu bokk na tam ñu xam maanaam ñu xam technologie bi maanaam nan lay doxee xam njëriñ bi ak yooyu blocage yiñ ci rencontré nag ci gën a bari moo doonoon ci phase bi ñuy soog a démarrer phase du prototypage parce que boo gisee Sénégal IoT xawu fee kii noonu xawu fee fës donc xawoon nañu am ay problème ci wàllum jënd matériel yeeg yu demee noonu mais actuellement nag problème bi ñu gën a mën a rencontre bi ñu gën a rencontré la actuellement mooy am accès ci client yi mhm. c'est-à-dire que benn pour bëgg a jaay ay particulier mhm. waaw xaw na ñoo ay jafe yuñ ci am yuñ ci am amoon nañ ci ay ok ok que euh, jafe-jafe yooyu war na mun a war nañ ko mun a teggi parce que euh, yaakaar naa ne solution bi gouvernement bi ak euh, structure yu mel ni ay ONAS war nañu soxla même après kër yi sax même après kër yi sax war nañ ko mën a jëriñoo euh, ci canalisation yi pour prévoir yenn problème yi nga xamante ni mu ngi am ci biir dëkk bi tu vois euh, donc je pense que war nañ ko genre est-ce que sax yéen a ngi euh, nekk en collaboration ak genre structure yu mel noonu ay gouvernement bi wala ONAS voilà pour wax leen dayo bi nga xamante ni moom la solution bi ngeen proposé am. waaw loolu nga wax it am na solo lool ndax boo gisee li ñuy tuddee gestion des bouts de vidange maanaam nu a déchet wu fosse septique yi du doon ay particulier wala benn nit moo koy def parce que dañuy tuddee lu ñuy chaîne de valeur c'est-à-dire que dafa am maanaam benn ensemble boo xam ne ñoo war a mën a dajaloo liggéey ci pour mbir mi mën a dox donc nag liggéey bi doon na gën a yomb bu fekkoon ne autorités yi nga xam ne mooy les autorités compétentes dugaloon nañ ci seen loxo waa actuellement nag ñi ngi parce que waa direction de l'assainissement ñooñu boole woon ak benn entreprise muy Delvic bu nekk Dakar pour ñu mën a xool nan la a def pour installer ay capteurs instant bi tam waxtaan ak ONAS mhm. ñu mën a def tamit ba nga xam ne zone inondable comme banlieue bi nan la ñuy mën a def mettre foofu en place des fosses yoo étanches yoo xam ne du amate infiltration ci nappe bi ak remontée des boues ñu def fi capteurs yi di mën a def vidange à temps des ñi ngi mhm. ñaan mu mu aboutir. incha allah dina aboutir te ñu ngi ñaan yàlla affaire bi aboutir voilà nekk nekk bénéfice pour Sénégal yëpp mais aussi pour yéen ñi nga xamante ni euh, créé ngeen solution bi nii mais euh, franchement man maa ngi lay euh, encourager bu baax di la remercier franchement ci solution yi nga xamante ni da nga koy créer tu vois pour gën a mën a bi c'est-à-dire technologie bi dañ dañ koy utiliser ci domaine yu bari donc suñ gisee genre initiative yu mel nii dañ koy vulgariser pour yëpp xam ko ñun aussi donc avant épisode bi di jeex incha allah allah di nga ñëwaat wax ñu exactement fan la la Sénégal yi mën a fekk euh, fan lañ leen mën a gis ci réseaux sociaux yi pour mën a am plus d'informations ci euh, ci seen euh, solution bi nga xamante ni mooy fausse éthique d'accord. ok donc restel ñu dem ci deuxième partie bi da ngay interagir aussi ak ñun wax ci sa xalaat puisque ci domaine bi la ba léegi affaire yu objet connecté internet de objets alors donc on reste. Mm-hmm. voilà pour mën a dem ci deuxième partie bi alors docteur ñu dem ci deuxième partie bi. oui El Hadj. oui pare nga ñu dem ci deuxième partie bi j'espère que gars yi leen <laughs> ah. non parce que gis nga koor gi moom dafa métti quoi ataaya amul café amul voilà gis nga maa ngi tooñ sax. ci mel bi ne leen indiwaay leen ay café mais fàtte woon naa ne sax ñu ngi ci weeru koor quoi. naar yi dañoo ñëwee koor naar yi moom ñëwee nañ koor. waaw <laughs> gis nga. <laughs> alors alors docteur ñu dem ci deuxième partie bi euh, waxtaan ci sa article bi nga xamante ni proposé nga ko ak solution consultation à distance bi nga proposé ci biir maanaam euh, su ma ko mënee expliquer maanaam docteur bu nekk par exemple dakaar mën a saytu xale bu feebar bu nekk fu sori ci biir Sénégal n'est-ce pas genre bu demee noonu la ci tënk. ay Aïcha ñu dem donc exactement voilà ñu dem donc ci deuxième partie bi avec monsieur docteur Kéba Gueye. alors jamono bi ñu toll nii nag euh, ak xew-xew yu bari yu am euh, ci wàllum wér yaram ci àdduna bi euh, lu ci mel ni coronavirus am na ay jàngat yu bari yoo xamante ni mën nañ ko def ci ni ñuy saytoo wér-gu-yaramu nit ñi fii ci Sénégal déjà sunu docteur yi am nañu xam-xam bu bari te ay jàmbaar lañ trop loolu moom ñépp seede nañ ko mais aussi gis nañu euh, ne am na aussi ay jafe-jafe c'est-à-dire euh, gis nañu ci euh, aussi ci ay dëkk yoo xamante ni yu suri ci biir Sénégal am nañu ay jafe-jafe pour ñu leen taxawu foofu foofu ñun ñu nekk parce que experts yi bëriwuñ te mënuñoo nekk fépp ci Sénégal comme ni mu ko waxee ci introduction bi alors loolu moo tax nag. Euh, article bi docteur euh, Keba Gueye bind am solo trop parce que euh, parce que am na solution yi nga xamante ni moom la joxe pour saafara problème yooyu noonu nga xamante ni moo nekk ci ci ci consultation boobu nga xamante ni day faral di am te te te ni ngi di ci am ay jafe-jafe donc moom nag dafa utiliser aussi xarala yu bees yi lu ci mel ni internet des objets ak objet connecté yi du manière général alors docteur avant sax ñuy dugg ci solution bi nga xamante ni proposé nga ko. bëggoon nañu xam déjà euh, lan mooy article walla papier ak lan lay représenter ci ñi nga xamante ni dañuy faral dañoo nekk di def doctorat. ok merci beaucoup El Hadj si sa question bi mhm. ah, ah, ah, boo nekkee doctorant di préparer sa thèse. Mhm. ça dépend si labo si laboratoire yi nga bokk ak école doctorale yi nga bokk. ok dañ lay demander na la il faut que nga am. au minimum tant d'articles pour nga mën soutenir sa thèse parce que article yooyu mooy valoriser mhm. yow sa recherche par rapport ak état bi biñ toll si si monde scientifique bi ko donc il faut que nga essayer proposer ay solution mhm. yu xamante ni day jëmmale recherche kanam ok ok si si sa thème de recherche loolu mooy njëriñu article boo ko amul xamal ne ah, pour nga mën a soutenir sa thèse dana dana difficile trop au minimum war nga par exemple ñun suñu école doctorale dañuy demander ñaari article au minimum boo amee plus nag baax na mais dañ dañ demander ñaari article te article ñu demande dañu wax la da ko indexé fii quoi xamante ni képp ku dem par exemple I3E dina gis sa tur foofu ne tel article Keba bind na article article mu ngi si I3E ngi ko publier tel tel date. ok ok de sorte que n'importe qui ku bëgg xam benn état d'évolution yow sa état de recherche day dem tàppe rek dina xam ne ok yow def nga tant d'article te si domaine bii ngay liggéey ko. ok ok macha allah alors yow ci ban laboratoire nga nekkoon exactement bi ngay bind sa article bi. ok man maa ngi woon laboratoire bi ñuy wax LIR. Mhm. mu ngi à l'ESP. mooy laboratoire bu informatique et réseau et télécom. maa ngi nekkoon su la direction de monsieur Samuel Ouya si direction laa nekkoon si laa doon travailler si si article. si sama yëpp laa ko. macha allah. alors je pense que explication bi am na solo trop et lu tax may laajte question yi c'est-à-dire maa ngi waajal euh, ay euh, aussi benn saison boo xamante ni dañuy wax uniquement ci njëriñu recherche euh, yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci université yi alors je pense que loolu dinañ ko def et je pense que sax su boobaa war nañ mën a woowaat docteur Keba Guèye pour que mu mën ñëw intervenir daal parce que gis naa ne recherche dafa am solo tro trop trop ci dëkk. dëkk il faut que ñu def recherche pour que affaire yi mun di avancer solution bu euh, problème bu am ci dëkk bi rek dañoo war a dem université xool gars yi recherche yi ñu ci defoon pour ñu mun ko solutionner loolu nag su amul rek problème day am jafe-jafe day am n'est-ce pas alors. surtout sax gis ci période bi ñu toll nii. Euh, ñun suñu pays yi dañoo nekk pays yu néew doole. solution yu ñu war a yu ñu war a proposer il faut que ñu dem xooli les chercheurs mu nekk solution recherche développement quoi pas recherche classique comme ni ko gars doon defee proposition mais recherche yoo xamante dafay allant dans le sens boo xamante ni day dimbale suñu suñu population yi ngir ñu génn si état bi ñu nekk. exactement si si. parce que nekk nañu réew sous sous développé il faut que ñu ut ñoo xamante ni ñooy proposer solution yoo xamante ni moo ñu génnee si suñ suñu su développement te loolu dafa laaj ay motivation laaj na kii yu bëree bëri quoi. ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr pas dinañ ci def benn saison boo xamante ni euh, ci loolu rek la ñuy wax dañuy dugg ci université yi Dakar Saint-Louis euh, Ziguinchor Thiès. pour jéem a euh, parce que am na ay contacts yu bari yoo xamante ne ay professeur université leen tu vois def nañ seen doctorat yi ay genre de noonu donc war nañ mën a waxtaan ak ñoom ci njëriñu recherche fexe aussi ba nga xamante ni étudiants yi bañ a daw recherche bi parce que étudiants yu bari dañoo mel ni man bëgg xaalis master rek la ñu dem defi tu vois wax nga dama bëgg gaaw <laughs> damay wut xaalis tu vois mais <laughs> am na noo xamante ni euh, boo ko defee euh, ci recherche bi aussi am na ay ay ay méthodes yoo xam ne ni boo ko defee war nga mën a am xaalis c'est-à-dire mooy euh, fàttali naa sax ni ñu koy woowee cest à nga def recherche boo xam ne nii da ngay def doctorat mais nga def ko ci benn entreprise tu vois Euh, nga xamante ni di nga a am salaire mais en même temps aussi defaale ay recherche yoo xamante entreprise da ci bénéficier wu euh, science aussi gën ci augmenter. exactement exactement. la majeure partie sujet de thèse yu bëri bëri dañuy am euh, benn financement mu am financement c'est à surtout ça. léegi léegi financement boobu na nag moo lay permettre nga mën a am loo. loo kii quoi loo sutul loo tuuti quoi. ok si si non mais je pense que dinaa def thèse sax man ak Mourtala dinañ def thèse incha allah. <laughs> waaw waaw. <laughs> alors mais quand même c'est intéressant non c'est hyper intéressant parce que man euh, benn moment dem na lion Euh, doon def benn benn benn travaux ak ay doctorantes yu nekkoon foofu noonu euh, ci ay propositions ay algorithmes yu ñu defoon foofu laa découvrir monde recherche bi sax et euh, franchement j'ai beaucoup aimé voilà produire nañ sax benn article te pourtant defaguma defaguma thèse ah mais def nañ benn article gars yi bind nañ ma ci suuf quoi ah. voilà bind nañ ma ko ci suuf comme participer naa ci quoi ah, <laughs> gis nga voilà <laughs> ah, alors waaw gis nga alors docteur mm-hmm. ñu dem nag ci li nga xamante ni mm-hmm. proposé nga ko déjà première question bi ma la bëgg noo laaj mooy Euh, lan moo tax nga choisir bind benn papier ci wàllu wérgu yaram ak xarala yu bees yi mais aussi euh, nga tànn comme cas pratique euh, pédiatrie nga xamante ni moo nekk benn pàcc ci médecine bu toppatoo xale yi. ok man sama sujet de thèse dafa porté si lépp loo xamante ni côté service la quoi en utilisant IoT. ak les réseaux émergents. léegi damaa njëkkoon a bii si sama proposition doon benn la rek mais quand même damaa njëkk a commencé d' abord ma xool ne fii Sénégal képp ku bëgg a proposer service allant si domaine santé lan nga war a dajale pour nga mën a proposer service xamante ni population bi du sonn te coût de développe te coût de euh, boo koy déployer aussi du cher trop après ma ne non puisque ñun suñu suñu état bi pratiquement maye na Sénégal yëpp ak fibre optique à partir de l'ADIE léegi mën nañu wax ne quatorze régions yëpp am nañ fibre optique bu ADIE bi pourquoi pas ñu utiliser fibre optique boobu noonu ñu ñu mettre ko euh, si profilu population yi en proposant des services yoo ni dana leen dimbale si laa ñakkoon a proposer benn article dans le sens si nan lañ fexe nan lañ mën a utiliser réseau ADIE bi pour proposer benn solution de santé ma proposé ko ñu accepté ko boobu aussi c'était la même chose on l'a accepté après nag puisque proposé naa dans le cas général si benn si dans le cas de santé ma jël ma xool nag ma ne ok puisque ñun boo jëlee par exemple junni ndaw junni xale yu judd yu judd mm-hmm. seen premier anniversaire boo demee si bi quatorze personnes. Mhm. ñoo fay ñoo fay am cinq ans. Mhm. te duñ faatu mais ñeneen ñi par exemple boo dem boo jëlee fanweer ak benn. Mhm. si junne yooyu dañuy faatu boo demee si monde rural bi. ok ok nombre bi dafa important léegi pour pourquoi pas ñu xool nan la ñuy fexe pour réduire nombre bi. léegi nag c'est la proposer solution allant dans le sens pour la pédiatrie. ok ok ça c'est hyper intéressant parce que. déjà man bi ma gisee mu nekk ci wàllum sante euh, dama ne lii am na solo parce que fi mu toll ni jamono ji comme ni mu ko waxee ci introduction bi nekk na jamono joo xamante ni ah, wér-gu-yaram dafa lëmbee àdduna bi tu vois parce que gis nañ xew-xew yi fi am ak coronavirus bi et tout ça donc bépp solution boo xamante ni day day dem ci sensu euh, dimbali nañu seen wér-gu-yaram rek je pense que war nañ ko soxla te war nañ ko waxtaanee Sénégal yëpp xam ko pour que ñu jéem cee bàyyi xel ñi ci war a liggéey liggéey ci ñi leen war a woo aussi pour liggéey ci ak yéen euh, woo leen pour mën a liggéey ci ak yéen alors. man sa papier bi euh, envoyé nga. loolu benn ka waaw aji vas-y mhm. loolu benn cas la. loolu benn cas la woon. léegi beneen ka aussi. Mhm. puisque on a j'ai fait l'université avec des camarades yu nekkoon fac médecine. a ah, aussi ma def benn constat boo demee si monde rural bi da ngay gis par exemple euh, jigéen mu mu wannu loor ba am doom. Mhm. ba xale bi màgg du mos gis pédiatre. ok du mos a gis gynécologue. du mu sa xam carrément nan lañ yenn yenn feebar yi nan la koy discuter ak pédiatre ak euh, gynécologue wala am nan la koy discuter ak pédiatre yi pour ñu man leen ci dimbale mais moom li mu am na contact uniquement mooy les infirmiers ak les infirmières bu cas bi demee daal ba grave si dañ koy yóbbu tuut mu dem si si région ba bu demee si région bi si lay door a gis un médecin spécialiste un médecin généraliste mm-hmm. région yu bëree bëri amul médecin spécialiste ñu bëree bëri ñu ngi nangu ñoo génn ville yi mm-hmm, mm-hmm. surtout Dakar ok ok la majeure partie des pédiatres sont au niveau ñu ngi si opito yi de niveau trois ok et problème yooyu nag mu ngi bëri maanaam non ok est-ce que ñuy alléger bu nekkee na ñëpp mënuñu déplacé wu mais ñu xool benn solution boo xam ne dina permettre mm-hmm. pédiatrie moom du déplacé mais patient bi aussi dina rester si localité mhm. ñu consulté ko mhm. jox ko lim soxla sans pour autant que muy déplacé wu ñëw si ville bi parce que déplacement bi day nekk day nekk coût mhm. am na ñoo xamante nii bu ñëwee encore par exemple Dakar wala si yenn région yi amuñ fu mbokk wala bu ñu amee mbokk seen mbokk mi aussi est-ce que dina leen mën a héberger le temps que ñuy def seen consultation ak prise de rendez-vous yooyu yëpp démarche yooyu yëpp loolu ça prend du temps loolu loolu aussi beneen idée mhm. bu gën a tax ñu proposer article par rapport à franchement maa euh, franchement kontaan naa trop ci li nga wax nii parce que euh, dafa nekk loo xam ne ni dund naa ko y a pas euh, très longtemps dem naa fa sori ci biir Sénégal gis naa fa loo xamante ni keroog jaaxal na ma parce que dama dugg ci benn àll boo xamante ni gis naa ay femmes yuy dawal seen ay charrette tu ci ay conditions yu métti ci digg àll bi tu vois après je me suis dit ma ne ah, alors euh, ba léegi c'est-à-dire nekk ci ville bi wala nga nekk ci pays développé yi wala nga nekk ci yeneen euh, yeneen dëkk nga foog ne yenn yu bari jeex na fekk jeexagul. ba léegi sénégal yi ak sénégalaises yi am na ñu nekk ci au fin fond du Sénégal seen transport métti na seen communication metti na seen seen dund métti na donc du coup moo tax li nga wax ni euh, sama xel dafa daj léegi euh, scène boobu nga xamante ni gisoon naa ko te mu marqué woon ma trop euh, te boo ci indee solution ci yu demee ni franchement daf may daf may neex trop alors man lire naa ce papier bi et je vois que très c'est hyper naa ko ba mu jeex tàkk quoi ak proposition bi ngeen bi ngeen def ci biir alors est-ce que mën nga ñu expliquer ci tënk solution bi nga xamante ni moom ngeen proposé ci biir. ok solution buñ proposé dafay dajale ay technologie mhm. par exemple internet des objets. ok ak euh, serveuse bu benn serveur bu ñuy wax Currento Media Server. ak euh, benn serveur euh, buñu ñu installé le réseau IMS. maintenant le pourquoi ñu ñu dajale technologie yooyu yëpp si benn kii benn but la parce que bu nekkee ne da nga bëgg a def consultation à distance il faut que nga jàkkaarloo kii ngay consulter bu nekkee da nga bëgg a def consultation à distance il faut que xam valeur constante patient bi man nga xam température corporelle am mën nga xam battement cardiaque am man nga xam ainsi de suite léegi valeur yooyu nag il faut que nga am ay capteurs pour mu récupérer ko léegi capteur yi koy récupérer moo tax ñu utiliser des objets léegi pour communication bi mën a jàll sans problème ñu utiliser maintenant ñaar bi communication en temps réel avec vidéo mooy Currento Media Server léegi nag bu nekkee ne patient bi dafa bëgg communiquer sans pour autant que mu utiliser vidéo mais mu communiquer directement en audio mhm. sans mu fay mhm. mën nañu utiliser maintenant le cœur du réseau IMS léegi nag loolu lépp nag dañ koy mettre ci réseau bi de sorte que man nga am deux cas premier cas bi mooy bu nekkee patient bi zone bi mu nekk amul connexion internet mën na utiliser réseau ADI bi uniquement mu faire li muy def mu def li muy def bu nekkee nag patient bi fi mu nekk am na connexion internet mhm. mën na utiliser bu ko neexee internet mën na mën bu ko neexee aussi mën na utiliser mhm. réseau ADI bi sans problème mais serveur yi moom mhm. si réseau ADI bi lañ ko implémenté. ok ok macha allah alors je pense que je pense que euh, déglu nañ euh, technologie déjà yi nga xamante ni euh, utiliser nga ko ci biir affaire bi lu ko mel ni web RTC voilà IMS ak Corento ak yu demee noonu mais alors alors alors avant ñu dugg sax ci nga expliquer ñu détail un technique yi tuuti tuuti parce que des fois dañuy bëgg ñam tuuti ci technologie bi aussi parce que am na geek yoo xamante ñu ngi toog di déglu quoi <laughs> alors. Euh, Mourtala Mourtala yow lan nga xalaat ci euh, déjà li nga dégg nii euh, docteur Keba wax ko waaw docteur Keba te recherche bi dafa am solo ba nga xam ne man boobu ba tey sax maa ngi naan non lii moom. Mhm. bu ko autorité yi dafa am ci domaine de recherche yoo xam ne yow bu fekkente ne yaa ngi def recherche mo ko nga ko moomatul pop maanaam autorité yi dañ ko war a accaparer wu pour mettre ko au service de la population. parce que booy seet moom fa mu laal dafa dafa dafa doon domaine bu dafa doon foo xam ne dafa maanaam dafa metti mhm. ndax euh, booy seet ay xale yi dee ci wàllu yi dee mhm. ci village yi nga xam ne booy seet lu gën a bari mhm. manque euh, d'infrastructure sanitaire yi yooyu ñoo ko waral exactement donc ak solution bi mën na régler beaucoup de problèmes te booy seet lu ci gën a bari booy xam naa xaw ma lu ci bari sax mais du cher du cher dina mën a régler beaucoup de problèmes kon jàpp naa ne lii daal maanaam lu ñu war a mettre la en place pour régler la problème de la mortalité infantile ak euh, yu demee noonu. ok ça c'est sûr alors man man je vous dis hein, franchement euh, domaine IoT moom ma commencé neex déjà épisode yi ma ci defagum nii voilà moom affaire ba mu commencé dugg te foog mu ut ay professeur te xam naa yéen du ngeen ci mucc quoi incha allah. <laughs> yéenay nekk samay professeur waaye <laughs> ça alors alors alors léegi su ma su ma xam su ma comprendre bu baax li nga wax c'est-à-dire da ngeen utiliser euh, nouvelle technologie yi pour fexe ba ki nga xamante ni mu ngi nekk ci dëkku àll bi su amee problème waroon na mën a dem ci dëkk yu mag yi lu ci mel ni Dakar mbuur wala ci région yi dem déplacé wu ak coono bi muy àndal ak lépp dem ci médecin ba consulter wu médecin bi gis ko bët ak bët consulter ko léegi espace boobu noonu ak temps boobu noonu muy perte mun nañ ko réduire ba permettre nit ki mu toog fi mu toog soit ci dëkk bi mu nekk ci euh, ci euh, structure sanitaire bi fa nekk mu dem fa mu jokkoo ak médecin bi nga xamante ni mu ngi nekk dakaar wala Thiès wala feneen fu sori euh, jokkoog moom gisanteeg moom jaxaran ci écran yi ko consulter ko à travers ay capteurs yoo xamante ni dañ koy installé ci saal bi mu nekk ca àll ba tu pour mun a Euh, médecin bi nekk Dakar mun a xam température yaram beeg xam yu demee noonu parce euh, bi tàng na wala yeneen ak yu demee noonu mais fi patient bi toog da ngeen di utiliser ay ay ay ay yoo xamante ni day permettre ki nekk dakaar moom dina mun a xam sax température ki nekk fële ne ñaata la ak yu demee noonu ba mun ko consulter consulter ci anam yu yu leer n'est-ce pas loolu la. waaw euh, bi moom patient mi lu muy def moom day déplacé wu uniquement rek dem si si poste santé bi ko gën a jege. ok ok bu demee si poste santé bi bu ko gën a jege pour la première fois day dem l'infirmier bi day jël seulement les équipements yi rek mu mu mu kii ko si yaramam bi quoi jël capteur température def ko si yaramam bi battement cardiaque ainsi de suite taux de glycémie ainsi de suite lépp lu mu lu mu rek da koy da koy mettre si yaramu patient léegi bu ko maîtriser ci yaram patient bi automatiquement. Mhm. données yooyu noonu capteurs yi dañ koy recueillir. ok bu ko capteurs yi recueillir dañ koy envoyé ci base de données ba pour la première fois léegi nag patient bi il faut que mu am compte ça veut dire ñu ubbil ko benn interface boo xamante ni ci dañ koy inscrire quoi. ok bu ñu ko inscrire ba mu ba mu am les inscriptions ci lay connecté léegi nag su nekkee ne pour la première fois nga bëgg a wu dañoo def en place benn genre API boo xamante ni moom mooy def requête si est-ce que patient bii nii est-ce que bokk na si patient yuy inscrit si base de bi bu nekkee waaw la automatiquement maintenant ñu jël patient bi yóbbu ko si serveur Camilio bi mooy serveur Currento euh, Media Server. ok moo yore foofu nag moo am web RTC bi. léegi nag ñu ñu jël les données exposé ko si interface am de sorte que moom image am day génn si suufu imagem ñu defan maintenant l'ensemble des capteurs ak seen ak seeni valeur reçue quoi. ok ok léegi euh. nag en ce moment là c'est l'infirmier ou bien euh, sage-femme bi moom mooy choisir parmi ci base de données bi parmi les médecins à consulter. parce que médecin bu nekk dañ koy fixeel euh, ay heure yoo xamante ni war na mën a def consultation ak kiyam ok léegi moom nag mooy déclencher l'appel bu déclencher l'appel le médecin am na deux possi am na deux possibilités recevoir appel am si smartphone am wala recevoir appel si si téléphone am normal sans pour autant que mu utiliser connexion internet wala quoi que soit ok gi nag su boobaa si la ñuy commencer maintenant la consultation soit on le fait directement soit mën na ko décaler ne par exemple d'ici ce soir je peux faire la consultation maintenant bu nekkee ne benn cas urgence la là c'est obligation li muy def rek jàkkaarloo kii bi def la def consultation bi maintenant bu nekkee dafa laaj dafa laaj rendez-vous pour mu ñëw à Dakar moom mooy fixer rendez mooy fixer de sorte que bu ñëwee du jaar kër kenn day ñëw def directement parce que am na déjà rendez-vous am na place am na macha alors ça je pense que franchement système boobu c'est ni nga ko expliquer nii c'est fluide c'est compréhensible euh, ñëpp dañ koy mën a comprendre normalement alors man damay dugg léegi un peu euh, ci côté parce que gis naa ne am na technologie yu bëri yoo jot a wax yu mel ni ay web RTC ay WOT mooy web euh, web of things ci vois je pense. web of things voilà ay wax exactement voilà man na sama anglais baaxul quoi voilà gis nga moo tax thing lay wax quoi. <laughs> <laughs> d'accord <laughs> alors alors am na aussi IMS tu yi nga wax noonu ak Kurento ak Juju alors léegi dama bëggoon nga euh, ñamal tuuti gig yi nga xamante ñu ñuy déglu ak yi nga xamante ni bëgg nañ technologie parce que euh, déjà man mi sax ba ma gisee technologie yi nga bind ko dama daw gaaw xool qu'est-ce que ça signifie xam nga soob rek tu vois alors est-ce que mën nga ñu expliquer lan mooy euh, WebRTC déjà premièrement ak lan mooy wax déjà premièrement lan mooy WebRTC déjà pour que nit ñu comprendre rapidement c'est quoi de manière plus simple web RTC nekku dara lu mooy benn technologie boo xamante ne da lay mën a am nga am communication multimédia en temps réel. macha allah web RTC léegi nag am na nag ay solution yu bëri pour nga mën a proposer web RTC. ok ok léegi nag le pourquoi ñu choisir le Currento Currento pour le moment mooy serveur web RTC boo xamante ni moo gën a am doole te moo gën a mën a fournir. Euh, ay solution yu bëri par exemple euh, mën nga def euh, lu bëree bëri ak solution boobu noonu ok c'est cool ak tax nag ñu proposé ko ok alors ñu jàll ci beneen bi c'est-à-dire pourquoi ngeen utiliser euh, kii web des web des objets merci <laughs> xam nga internet des objets voilà ak web of mën nañu wax ne ñaari kii yu bokkul la. ok ok. parce que web of damay jël technologie web RTS damay jël technologie yu nekk ci internet des objets yëpp léegi ma ma def de sorte que données yu fay ñëw dañuy am directement applicabilité ci internet. en quelque sorte su ma bëggee jël données yi mën naa jël données ak internet des objets stocké ko quelque part après mu utiliser yeneen technologie internet pour man koy exposer quoi. ok je vois. mais man fi dama utiliser directement internet des objets ak yenn technologie ñoom ñaar laay boole nag tuddee ko web of things. ok ça internet des objets ak mhm. technologie des web. moom laay jël boole ko mu tuddee ko web of things. web of things ok c'est cool alors beneen bi mooy. maintenant waaw allez vas-y vas-y. beneen bi mooy Camilio EMS parce que boo gisee si papier yaa ngi gis ay termes K2IE. Mhm. exactement ouais. ñaari K la ñaari K la benn K bi mooy Currento Media Server mooy le serveur web RTC beneen K bi mooy mooy mooy Camilio. ok ok. Camilio EMS nag. benn Camélio tout court benn serveur de signalisation cible signalisation cible prate mën nañu wax ne ah, l'IMS réseau IMS mooy pour être plus simple nit ñi mën ko comprendre réseau IMS mooy lan la su ma bëggee woote en même temps di surfer sur internet. ok te benn du dagg benn su ma par exemple dans le cas normal su ma recevoir appel su may appel su ma jotee appel normal appel vocal normal. du ma amati internet dañu couper sama internet ñu branché ma soit à 3G soit à 2G maintenant pour éviter loolu pour éviter ngay am coupure connexion internet moo tax ñu proposer réseau IMS réseau IMS day lay tax nga mën a am maintenabilité entre communication audio classique GSM en même temps aussi une connexion internet tu peux via GSM sans problème en même mhm. temps nga continuer di am sa connexion internet léegi nag puisque ñun dañoo bëgg a proposer solution boo xamante ni du du créer benn problème donc mhm. lu gën a kii mooy mhm. même si la personne mu ngi communiquer ak téléphone am mën na utiliser téléphone aussi di di def euh, consultation à distance ok ça c'est ça c'est loolu moom franchement c'est vraiment top quoi y rien à dire je pense que ñi koy déglu déjà euh, bu ñu bu ñu leen waxalee technologie boobu rek dinañ mën a dem sur internet euh, gis euh, technologie IMS boobu noonu gën a xool spécification yi ak lan lay doxee ak yu demee noonu maanaam moo nekk IP multimédia système voilà donc dinañ gën a mën a. voilà xool naka lay doxee ak yu demee noonu quoi. alors alors je pense que. te boo xoolee aussi la fi fi avenir bi jëm par exemple 5G gars yi ñu ngi wax 5G ainsi de suite. Mhm. lépp ce qui est derrière cela c'est c'est te boo xoolee fii Sénégal euh, euh, dañoo proposé ne c'était fin deux mille vingt. Mhm. que ne opérateurs yëpp da war war nañu migrer wu dem si IMS cela veut dire ñu adapté wu seen réseau yi. ba adapté ko si réseau IMS. mais pour le moment c'est seulement côté fixe bi moo dox moo moo pareegum mais côté mobile bi pareegul mais côté fixe bi moom pare na sur l'ensemble des opérateurs mais côté mobile moom pareegul sur les opérateurs. ay eh, loolu loolu kii benn recommandation bu ñu joxe woon ne d'ici la fin de deux mille vingt ñëpp waroon nañu migrer wu ñu implémenter seen seen réseau yi le réseau IMS pour mën a am la maintenabilité entre euh, une mm-hmm. communication GSM une connexion à internet sans problème. ok ok alors je pense que ça c'est top de chez top comme ni ma koy faral di waxee et war nañoo euh, dem ci technologie yooyu gën a mën a xuus gën a mën a sopp quoi xool technologie yooyu parce que à chaque fois jamono day dox technologie day dox affaire yi gën a avancé il faut que ñu innover di xool fu technologie toll ci àdduna bi aussi ñun aussi ñu jéem a aligné wu pour euh, pour toll foofu mais du ma dem sans autant sans autant ma wax ci wàllum sécurité parce que gérer sécurité données yi nga xamante ni moo nekk ci biir euh, système boobu noonu. ok euh, déjà fii première partie sécurité bi mu ngi nekk mu ngi nekk si le le serveur Currento média Server mooy serveur web RTC bi nga xamante ni mooy exposé données yëpp quoi. Mm-hmm. foofu la njëkkoon implémenté benn protocole de sécurité pour mën a permetre mm-hmm. euh, seulement les personnes yu ñu. yu ñu yu ñu autorisé pour ñu accéder si si plateforme bi rek ñoom ñooy gis données yi maintenant après on s'est dit que na lii rek doyul quoi donc il faut que ñu xool yeneen solution pour gën a mën a sécuriser données yi maintenant si si beneen article encore on a proposé les méthodes pour nan la ñi fexe pour sécuriser données yu ñuy exposer si si si plateforme yi on a proposé encore beneen article boo xamante ni uniquement mm. si loolu lay parler quoi si. sécurité kii si sécurité euh, des données quoi parce que loolu am na solo. trop mais soit mm. ba léegi ñu doyagul parce que euh, données yuy données personnelles la euh, c'est sensible donc forcément il faut que nga rend nga jox patient bi wala nga jox ay mbokkam benn rassurance de sorte que ñoom seen données yi dinañ xam ne suñu données yi ñu ngi nekk en sécurité. bien vrai le maximum quoi. waaw ouais, il faut le euh, euh, pense que expert sécurité alors li tax man nag technologie neex euh, je pense que genre yu demee nii su man damay wax rek ne képp ku nekk tey expert sécurité man ku ma mos dalal ci yi wala genre yoon soo déggee lii war nga mën a dem rapproché wu de Kéba pour gën a waxtaan ak moom ci wàllu sécurité bi ngeen jéem a partager ay connaissances c'est-à-dire parce que kenn mënul def lépp donc mbooloo mooy def lépp. non non je pense mm-hmm. que tey communauté bi yëpp. moo xam ñi def sécurité ñi def réseau ñi def développement suñ bolontoo rek war nañ mën a créer affaire yoo xamante ni extraordinaire la c'est pas c'est pas bien yow nga dem euh, toog toog sa ruq rek créer benn affaire euh, jël ndam bi yëpp ne man maa ko créer non non maa def li tu alors je pense que partage war na mën a am pour que Sénégal jëm ci kanam ba ñu mën a def ay projets yoo xamante ni day nekk ay projet yu viable projets yoo xam ne day atteindre seen objectif parce que bëri na Sénégal projets yu ñu def yoo xamante ni malheureusement duñ atteindre vraiment seen i objectif quoi parce que dañuy dem ba à un certain moment voilà day daanu wala ñëpp bàyyi ko wala nga xamante ni soutien biñ ci war a am duñ ko duñ ko am donc tey benn développeur bu mel ni Ibrahima comme man war na mën a dem embrasser projet yooyu def ci wàllam beneen kuy def sécurité ku mel ni Gérard Dacosta war na mën a dem def ci wàllam ah, ku ci mel ni Elias nekk ci wàllum intelligence artificielle war na mën a gis projet bi ne war na am benn touche intelligence artificielle bu ci nekk mu ñëw proposé ko donc loolu bu ñu ko defee je pense que dinañ am ay solution yoo xamante ni day viable te ay solutions yu am solo lay doon alors avant ñuy dem ci beneen question bi damay ah, laaj Murtada lan nga xalaat yow ci technologie yi nga xamante ni euh, docteur utiliser na ko ci plateforme bi nii euh, lan nga ci xalaat ci technologie yooyu yëpp quoi. waaw man nag booy gisee du xam naa ne fanatique naa. Mhm. du ma ma xaw ma ci informatique lu bari. parce que man sama wàllu assainissement la. waaye gis naa ne li mu wax yëpp. Mhm. am solo la. lu am solo loo xam ne ñun ñii sax suñu projet bi dina dinañu tax ñu bàyyi xel ci wàllum euh, données données personnelles yi. nu ñuy def ba sécuriser ko am na solo loolu sax. macha allah Ela li nga wax noonu eh, li nga wax noonu dafa ma am amal solo trop parce que nee nga euh, nekkuloo informaticien tu vois mais tu es arrivé nga indi tey benn solution informatique parce que am nga benn ouverture d'esprit dem liggéey ak ay informaticiens parce que yaa ngi yëngatu ci wàllum assainissement am nga ci projet. liggéey ak ay informaticiens ba mettre sur place euh, projet bu mel nii donc loolu mooy wane ne juste que ne c'est l'union qui fait la force maanaam mbooloo mooy euh, mooy doole. alors docteur docteur beneen question bi ma bëgg noo laaj mooy je sais que papier bi euh, publier nañ ko ak solution bi am na solo trop mais li ma bëgg noo xam mooy est-ce que euh, actuellement mu ngi dox ci ay bërëb fii ci Sénégal euh, sinon aussi yan jafe-jafe euh, moo am pour que solution bi mën a nekk ci bërëb yu bari walla ci hôpital yi euh, fii ci Sénégal. ok au début. c'était tout juste pour essayer de proposer benn solution allant dans le sens d'alléger quoi. mais maintenant bi ñu defee kii bi ba ñu pratiquement mën naa wax ne bi ñu bi ñu jëlee mur papier bi foofu après si la si la gars yi door a xam exactement kiiw papier bi quoi après si la door a rapproché wu au niveau du labo. Mhm. ils ont discuté avec euh, sama directeur de thèse monsieur Ouya. déjà am na benn benn hôpital bu déplacé woon bu ñëw ne moom dafa bëgg benn solution boo xamante ni c'est un peu similaire ak bi mais pour ay stagiaires am yoo xamante ni ñoom ñëpp mënuñu dugg ci benn salle ngir di assister opération. léegi nag il fallait que ñu propose solution mais nee nañ solution bi moom arrangé kii na leen bëgg nañ ko bëgg nañ ko implémenter mais déjà daar daar li ñu gën a soxla mooy solution boo xamante nii dina permettre ay stagiaires am mën di suivre en temps réel opération parce que bu ñuy def opération ci salle bi ñoom ñëpp mënuñ koy dugg te ñu bëree bëri encore dañuy dañuy nekk en dehors bu ñu mën a xam carrément lan la ñuy def léegi pour ñu proposer léegi nag on a l'avenir euh, nous édifiera est-ce que en général est-ce que ñoom dinañ ko dinañ implémenter solution buñ pare ñu door a xool nan lañ ko étendre ok macha allah alors ñu ngi def appel a tous les sénégalais bépp euh, structure boo xamante ni euh, privé la wala public ñu rapproché wu ci laboratoire bi rapproché wu ci docteur Guèye dinañ def euh, tous ces informations yépp bu ngeen mën a am pour jot ko comme ça voilà gaa yi commencé mën a utiliser yenn système yi demee nii ñu implémenter ko sécuriser ko defar ko ba nga xamante ni day fonctionnel dootu nekk rek loo xamante ni dañ koy bind ci ay papier mais day nekk lu réel loo xamante ni non seulement day exister déjà sax xam naa exister na na mais dafay jëriñ euh, population bi ci nu mu gën a yaatoo surtout sax ci masse bi quoi donc loolu mooy euh, je que après mooy nekk intérêt bi te dinañ ci waxtaan ci épisode yi ma leen wax ne dinañ ko def ci wàllum recherche scientifique wax naka la recherche scientifique war a mën a jëriñee nit ñi seen ci seen àdduna ak ban dayoo lañ ko war a jox pour que euh, réew bi mun a avancer alors je pense que nag si nañ presque ci fin wu épisode bi et laaj bi may pense que pour yéen ñaar ñëpp la kenn ku ci nekk mën na ci tontu novateur ah naka ngeen gisee wàllum recherche scientifique fii ci Sénégal yéen déjà Moutala hmm, waaw dañuy faral di wax naan Sénégal ñu xarañ ñoo fi nekk mhm. ñu xarañ sax ñoo fi nekk parce que booy seet boo jëlee ñetti euh, jeunes yooy gis wala universitaire booy seet ñaar ñi am nañ benn am nañ projet boo xam ne actuellement mënaguñ ko en œuvre ndax li tax mënuñ koo mettre en œuvre mooy problème de moyen ndax booy seet ñu ci gën a bari problème de moyen la ñuy lañuy la ñuy wax amuñu infrastructure te nii ci dans les universités moo ñuy mën a permettre ñuy def ay expérience wala yu demee waaye xam-xam bi mi ngi fi xam-xam mi ngi fi comme par exemple dans nos universités en général tax ay laboratoire booy seet du fa du fa am donc bu fekkente ne am yenn projet yi day xaw a metti koy mujjee sax daal daal da koy abandonné kon jàpp état bi war na mën a def ci loolu ay ay jéego solo pour université yi mën a am ay laboratoire yu équipé pour mhm. mën a booster la recherche ok macha allah alors docteur yow moom je pense que xam naa li nga mën a wax ci recherche scientifique ak problème yi ci nekk bëri na torop mais dama lay wax nga tënk rek tënkal ñu déjà <laughs> <laughs> résumé ñu rek lan nga gisee recherche scientifique fii ci Sénégal ci tënk ok recherche bi mën naa wax ne guddi yuñ toll nii day sooxe. ok ah, si domaine bu muy sooxe moom mooy domaine nu concrétiser les solutions proposées parce que am na solution yu bëree bëri chercheurs yi ñu ngi koy proposer mais le malheur bu si am moom mooy ci ko ko. Ah, duñ ko mën a implémenter pour nit ñi xam carrément njëriñu chercheur si réew mi quoi. beneen bi mooy aussi ñu bëree bëri dañuy démotiver wu parce que recherche dafa laaj euh, patience recherche dafa laaj aussi nga am quiétude boo xamante ni di nga mën a liggéey def gëstu si li nga bëgg a gëstu mm-hmm. en un temps record nga am li nga soxla parce que déjà gëstu la ñuy wax gëstu moom doonul da nga jóg rek dem xam xam fi nga jëm da wër mm-hmm. da wër di wër ba gis ba dajeek ba mhm. dajeeg lu méngoog li nga bëggoon nga jël ko jëm koy valoriser. ça c'est sûr. Mhm. donc en quelque en quelque sorte d'abord il faut que ñu motiver les jeunes pour ñu mhm. def la recherche. deuxièmement aussi buñ buñ defee la recherche solution yu ñu am mu nekk des solutions yoo xamante ni solution recherche développement la quoi parce que suñu pays fi mu toll nii il faut ku ñu orienter suñu vision de recherche mu nekk recherche développement. de sorte que ñu mën a apporter ay solutions si développement wu pays bi ko ok macha allah alors donc kon euh, recherche et développement nañ orienté wu ci recherche et développement pour que def ay recherche yoo xamante ni day am ay jeexital ci baax ci population bi dañ koy mën a jëriñoo directement alors. rapidement très très rapidement parce que fi mu toll nii waxtu bi xooj nañu te xam naa ne euh, ndogu baa ngi waaj ñëw man instant bi sa affaire yaa ma commencé xeeñ quoi tu vois euh, maa ngi xiif quoi tu vois <laughs> rapidement yan conseil ngeen mën a jox bépp jeune sénégalais tey jii nii Mourtala. waaw man waaw li ñu war a mën a wax sunu sunu sunu sunu morom yi ak sunu mbokk sénégalais yi ak mhm. presque les africains. Mhm. mooy jéem wut xam-xam sakku xam-xam comme ni ko professeur Cheikh Anta Diop doon ndax dara jom africain yi nañu sakku xam-xam te jéem a def lancer wu ci recherche même yàlla a problème de l'emploi qui se pose mais jàpp naa ne même bu fekkente ne am ko problème d'emploi bari na ay yitte yu ñuy soobu yoo xam ne presque duñu yóbbu fenn nit ku nekk war nga ma nga doon un universitaire war nga au moins ngay consacrer yenn waxtu ci sa ci sa ci say ci ci sa dund ci dans la recherche ndax munoo seet seet lu yàgg te gisoo te ñun booy comme wax la waaye bi muy dugg wàllum IoT sonnoon naa lool waaye dem naa ba am na lu ma ci jot a xam loo xam ne jàpp naa ne mën na régler yenn problème mhm, kon loolu laay lay digal sama morom yi maanaam ñu lancé wu dans la quête de la connaissance ak mhm. dans la recherche moo mën a jëmale réew mi macha allah ça c'est sûr alors docteur ban conseil nga mën a jox directement jeunes sénégalais yi. fi mu toll laa daanelee rek foofu laay tàmbalee moom jeunesse moom waruloo am benn yitte bu mooy sàkku xam-xam. Mhm. boo sàkkoo xam-xam nag ba pare. Mhm. mën nga concrétiser li nga yow li nga sàkku ak lu néew néew nga jéem koy concrétiser mettre ko au service de la population amul leneen loo mën a def leneen sinon après da nga sa temps pays bi aussi mënul lay topp di la di la di la canaliser non non il faut que nga dem sàkku ju xam-xam ñu nangoo muñ nangoo dem sàkku ju xam-xam quoi ça c'est. macha allah l'idée maîtresse quoi. macha allah alors la je moom c'est alors je pense que épisode bi jeex na euh, li duuf ci nag bi xajul ci cin bi comme ni ko olof di waxee euh, te franchement fi mu toll nii gars yi man sonn naa trop man xiif naa trop quoi xam naa ne tey séeréer yi dinañ ma tooñ mais man xiif naa trop fi toll nii sonn naa <laughs> alors lan moo nekk seen mot de la fin pour que ñu tëj épisode bi. waaw El man maa ngi lay gërëm. di mhm. gërëm docteur. Mhm. di remercier di rafetlu maanaam di rafetlu émission bi. di ko mhm. rafetlu lool lool lool sax. di wax ne am na solo. waaye ñu pérenniser. Euh, pérenniser ko pour njëriñ ji mën a. ex ci population bi. maa ngi di gërëm. alors yow fan lañ la mën a fekk sur internet bi ak euh, yow Mourtala fan lañ la mën a fekk sur internet ak gars yi fan lañ la mën a euh, joindre ak yu demee noonu mais mais après sax dinañ ko bind ci description bi mais mun nga koo wax directement gars yi dégluwaale ko. waa am nañ benn page euh, Facebook boo xam ne mooy Fostik boo bindee Fostik. Mhm. rek di nga mën a am information. di nga mën a contacter dinañ mën a waxtaan. Mhm. am nañ tam benn site web. Mhm. www point mhm. foofu tam boo fekk information yu concerne projet bi foofu noonu. ok macha allah information yëpp dinañ ko def ci description podcast bi pour que nit ñi mën ko am alors docteur lan moo nekk sa mot de la fin ak fan la ñu mën nit ñi mën a fekk dans les réseaux sociaux. yow dama lay remercier parce li ngay def nii dina tax. ñu même ñu jàngul français bu ñu dégloo émission bi dinañ ci mën a xam carrément parce que auparavant nit ñi dañuy dañuy làkk français rek mm-hmm. yow bu nekkee intéressé wul la parce que déggoo li ñuy wax sama mm-hmm. yow du la intéressé quoi mais lii dina toucher cible yu bëree bëri yoo xamante ni mm-hmm. ñoom fi ñu toog dinañ mën a déglu xam carrément ah ok kon ñu ngi def lu mel nii si biir dëkk bi kon ñii ñu ngi proposer solution yu mel ni si biir dëkk bi. ah moom sa idée bi nga am ngir nga def euh, sa kii bi moom ñu ngi la si remercier bu baax a baax a baax kenn amul sa fay quoi si côté boobu moom sincèrement. merci de cela man ki ma bëgg a contacter man nga dem si Facebook maa ngi mhm. Facebook. Euh, mhm. maa ngi link aussi. ok pratiquement si plateforme yi euh, mhm. yëpp yëpp quoi alors dinañ ko bind aussi euh, ci description podcast bi comme ça euh, ñëpp mun a am information yi pour mun lañ contacter directement alors lii moo nekkoon nag épisode tay bi ñoo ngi remercier bu baax Murtada ak docteur Guèye ci seen teewaay parce que vraiment dama leen approché rek ñu accepter ñëw waxtaan ak ñun partager seen xalaat ak seen ay connaissances ak sénégalais yëpp ak auditeurs yëpp di ñu déglu di leen fàttali aussi que ne. képp ku yaakaar ni euh, liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci podcast bi am na njëriñ am na solo désormais mun ngeen ñu jàppale supporter ñu euh, ba ñu gën a mën a doxal liggéey bi ci ni mu gën a baaxee pour loolu nag am na benn lien boo xamante ni moo nekk ci suuf maanaam lien Buy Me a Coffee euh, bu nekk ci suuf bi nga xamante ni boo leen ci cliquer rek après mun ngeen envoyé seen participation pour que projet bi gën a law ci kanam am na yeneen contenu yoo xam ne nag ñu ngi koy préparer ñu ngi leen koy pareel incha allah jamono yi di ñëw rek dinañ leen ko dinañ leen ko partagé ak yéen ngeen gis ko incha allah euh, ci biir podcast bi alors ñu ngi leen di remercier bu baax di leen jox encore dig dig daje ci beneen semaine week-end prochain kon ci beneen épisode avec Wolof Tech merci beaucoup les amis ciao. allez sama gars yi merci beaucoup kontaan naa ci yéen de. merci